ñu dong la inondation bi laal inondation bi ñi mu laal dafa bëri solution bi nag gaaw léegi yi des nag départementalisation communes yi koy gunge infrastructure sociale de base yi nga xam ñoom ñoom moo koy accompagner après la mais fi nekk nii li ni këtt ni jonn mooy nit ñi ndox mi domine na leen gajafal na seen ay bâtiment ba dëkkati fa wóorul ñu génn duñ gaaw a duggaate parce que bâtiment yi dafa gajaf actuellement amatul sécurité fi nekk nii waa protection civile am nañu am nañu sas ci seen kanam parce que bâtiment yi wëratul léegi loolu daar daar lu ci mën a indi solution dig na leen ay projet yoo xam ni trente milliards moo ciy dugg financement wu banque mondiale bien mais loolu lépp dama ni askan wi 15 jours ci biir ndox mi nan la ñu mën a def ba ndox ma du def ci ñoom weer xam nga la mooy dëgg ceg njaal bi dañuy waxoon dañuy vider ndox mi yóbbu ko mbaaw ginnaaw bi ñu ni dafay dafay dafay ballaat antanuñu ko mais finalement coow bi yëpp mooy dañoo xamul ndox mi buñ ko génnee fan lañ koy yóbbu xam nga luy dëgg